ngir am ay xibaar yu leer te wóor ak lépp lu xew ci wàllum actualité nationale et internationale aboneel gaaw ci sa chaîne bi di ASG Production sëriñ Abou Mouhamed mi nga xam ne muy jëwriñu Daaru Salaam sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Amidoun dugal sunu yéene ci yaatal ko ci mboolem njabootuk maam Cheikh ak mboolem seex yi di nuyu mboolem mbokki taalibe ya di nuyu itam sunu jëwriñ sunu xarit sunu soppee sëriñ Sidi maxtar Ndaw mi nga xam ne mooy wéy juru soxna Ndey Astu mii di seereel ñépp ne sunu sëriñ la sunu xarit la sunu wëllëre la sunu wéttal la sunu soppe la te yàlla rek a tax ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa te loolu lépp moo ko dox ci aw ay tànkam wax ko ci aw làmmiñam jëf ko ci ay cëram lu doon rek moo ko njëkk a defal moo ma ko njëkk a waxal jàpp ma jàpp goo xam ne awma kattanu jàppe na téye ma noo xam ne mënuma ko naa téye di ma xamal lu ma ko mënta xamal di ma defal lu ma ko mënta defal maa ngi ñaan suñu borom yokk kàttanam ak wéram ba mu àggale ay mébétam ci barke Sëriñ Tuubaa at yi nu weesu nga xam ne ab liggéeyam ak i xalaatam ak xam-xamam daa yemoon ci man rek boo ca yemoon doy sëkk waaye sama njaboot gépp moom mii moo taxoon ma jël leen yóbbu leen njaareem ñu di fa jàngal Quraanul Karim mu téyel ma leen di leen saytuwaat fi mu nekk nii sama kër genn gone nekk fa ñu fi des ñëpp mu ngi ma indi ci këram gii mu féete ma ci di leen dundal di leen saytu gën a sonn sëriñ daara ba leen di jàngal fuuf ngir moo leen di fanaanoo te bala ñoo tëdd mu am fu mu jaar ñoom te bu ñu xëyee mu am fu jaar ñoom bala ñoo demaat ci njàng ma nit na ku la féete foofu dalay lay wóor ne mënoo ko fay ndax aw araf ku ko jàngal nit mënoo ko fay àddina gi ci biir te joxe ko ñu di leen jàngal dima jàngal man mi seen bàyyi dima jàppale ngir yàlla walbatikuwaat barab be ma ubbiwaat muy barabu liggéeyukaay soxna nday astu mii kon maa ngi koy dooro nuyu moom ndax seereel naa yàlla ne fi mu ne nii su tase woon ak moom fudut fii mën naa ko xam ndax man musuma faa taseeg moom te li may giseeg moom néew na jàpp naa ne gisewuñ li man ñetti yoon waaye téewut keroog ba ma waxee ay kàddoom ak nëgën la mu waxoon lépp mu ngi koy def jàpp na ca liggéey ba yaatal na ca di ñëw di fa joxe xam-xamam te man mën a luguma ko dara moo taxoon ma ne woon yéen ñi ma ci mën a féete na ngeen ma dimbale ngir yàlla yàlla xam na ne sëñ siidi bis bi fàtte woon na ko wallahi al asim ci takkusaan lañ ma woo la ma sooda woo ne ma day astu bisam ba tey la ma ne ko man de kon xawma fu ma jëm tey ndegam tey la bisam ba moom fu ma jëm tey man xawma ko yaa ko mën a àndal li ci ma ñëw fekkaat la fa parce que borom Tuubaa naroon na maa fàtte bis bi te noonu la ma yëpp yi dal fi mu ne nii lu ma fàtte nag dinaa ko fàttaliku parce que naaxuma waaye leg léeg jotaay bii moom dunaa damay toog bëgg a wàññi fukk duma xam nañu koy defee waaye loolu lépp li muy tegtal rek mooy mat gi nga xam ne suñu borom a ko mat te doomu aadama moom ba jamono ju nekk muy gën a matadi xam ngeen ne yabuma leen ba tax may ñëw ci jataay bi ak yére yi ma sol yàlla xam na ne su amoon pexe damay làqatu ci sama xottu gerte rek ba génn dem ñibbi waaye ca daa tool ya laa jóge nag jaar fi te fii moom waajalu ma waajalu ma woon ñëw fi xaw ma woon ne it ñu sañsee nii ngeen sañsee laa fi fekk ndax nag giir ñi may nañ ma ay mbubb yoo xam ne war naa ko mën a sol ñëw ci giir ñi yàlla it dimbale na ma ci barke Sëriñ Tuubaa ba sagari mbubb yi may sol war naa cee mën a sol bàyyi laat wala xaftaan ñëw ci ci ndaje mi rawati fi ñuy sant Sëriñ Tuubaa te na ma ne moom ku na maa waat ci yàlla ne ne ku ma gën ku ma gën a sant Sëriñ Tuubaa moom mi ngi bi moom man na maa yàlla ne jàpp ma amul de dama ne jàpp ne ku ma gën a sant sëñ mi ngi bi na ngeen ma balaq nag xam naa ne boo demee am na fi ñoo xam ne loolu diis na ci ñoom waaye loolu laa gëm man li may doyee di doyee di ci bind bi ak melokaan bi nag moom li ma mën a waat mooy sëñ Tuubaa jàpp naa ko te bëgg ko te wóolu ko te yaakaar ko te maa ngi koy sant te yàlla laa koy seedeel kon ndey astuñ maa ngi sant yàlla ci sant gi ngay sant sëñ Tuubaa di la ci sant ci sant gi nga koy def tama jàpp ne lu kuy sant sëñ Tuubaa man ngay jàppale man maa wóor na ma wóorul yàlla ne waat naa ci yàlla ne man sëñ tubaa seetaanuma ndax bu ma sañ tubaa seetaanoon nëga ni maa ngi ca milieu artiste ya di xëccoog ñoom dënd yaa xalam yaa musique ya parce que loolu ma naa ko yàlla ma téye ci barke sëñ tubaa akuk baaxam di ma jàjj di ma soññi ci sama yëg-yëg ba ñemewu maa ñemewu maa jàdd dérapé benn boor auteur compositeur la scénariste la luma neex man naa ko def luma neex ci art mais don artiste seigne touba nak da day jël jogget luma bëgg def sax yeg yeg téré mako kon buma santul seigne touba duma du ma skor yàlla mënoon maa dugal ma ci milieu bo xamni bi ñimay andal ñepp lu bari lu ne ñang cey duggu yalla dimbalé ma sam ma may wax ci mbolo encore ba dana niw ku ngeen tassel ñu ne mas ñu ne dama ko daan doxal sama ndaw dana jafe ko gis ngeen ñu ne man dama ko daan doxal ci radio lay wax ñepp diko ko dégg Ken du la ne diw mës naa doon dawus bay jaga ken du la ñoo mësoon and di naan sàngara Ken du la ñoo mësoon and ci association nangam ak nangam kon buma ma santu sëñ Tuubaa du mas gor ndax gënuma nit ñi waye yalla ma tii ci barke sëñ Tuubaa tiitaruwuma nak barke borom touba dama koy sant yalla tay la gën tiit yaakar naane bala ma ag sama kër fimni ni damay pat pati di lox yaakar lu ne man na ma gar ci yoon wi waye buma santu sëñ man du mas gor ba tax ne soxna Ndey ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreem ci li ndax ku defut li def leneen ta def dara ta ñak waye bas bas yu rafete nii sañse sañse bu def melni def bernde yu melni li barke seigne touba dañ ko waroon di fay parce que li li ci saf ak li ci neex amul Sorano amul Grand Théâtre um wu ma Sorano Grand Théâtre nak parce que man xamna lu fa nek ay barab rek la yu ñu fermé tal fa ay lumière ak ay micro fa nekk ak sonorisation kep fa nek ak méridien présidence ak lépp fa nek ak CICES salle bu ñu fermé kep la tabax bu ñu tëj la tal te ay lampe di ñu la ka wéxal kep fa nek lañ fay wax rek ca la yëf yi wute ñay dem méridien da ngay toog jàng sa xasida boo jógee keneen toog rëkk ay ndëndam def misigam kon milieu yi benn képp la ñiy def rek a wute lu ñuy def te waaye xool leen li ñu doon def xale yi li ñu doon def fii sànq àndandoo ne der di yëkkati ay xasida ñu koy déglu muy neex nga toog ci baas bu féex boole ci ñuy xel yu neex di la jox waaye sëñ bi jotaay yi neex gi ëpp na waaye da ma baal àq ko sërëx sërëx yi ba ne saraax ci baas boo waxee ba géex mën naa am du ñàkk lu ñu war a wéex te kon du ci fekk maa ngi tuub tey jégalu di waat sama kulle rek sama sofeel tey sàkku ñaan rek di la sant sëñ Mortalla yaag soxna Soda ak Baye Fall ak soxna Ndey Njaay ak mboolem ñi fi toog maa ngi jégalu nag ndax waruma wax ci mbooloo ndax ab dof moom du wax waxi nit waaye daal maa ngi delluwaat di ñaan rek suñ borom gën leen sàmm te taxawu leen ba ngeen mën a àggale mébét yi ci barke sëñ Touba Mortalla ñu ngi lay sant baax di la gërëm salaamaaleykum wasalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Ahmadou ñu ngi lay fayam nuyoo ak ñi nga àndal ñëpp tey rafetlu bu baax kàddu yi te parce que yéenee jëriñu ndax gor rek moo neex àndal sëriñ Tuubaa ridwaanullah alayhi sëñ ma sàmba ci taalibe gi daa waxoon ne san lépp nañ ko jox sëriñ Tuubaa am góor gu baax gu sant Jeng ne man de am naa loo xam duma ko jox kenn maa ko yoral sama bopp mbir mi ñu ko ruumandaat ba señ tuba jot ci ne ko ana li nga dul jox kenn di yor sopp lu mu doon mu ne ko sama ngor mu ne ko mu du neex andal señ tuba ne ngor de ku ko amut du neex andal kon ngor moy am mbir di ca jariñe te nangu wo feñ ca njariñ la wane woon ya koy def man dama la deglu ci radio bi boba xamaguma la ligay wax amal ma njariñ ma jóg di tuñ tuñi ba xam fa nga nekk ñëw fa fasanteeg yow kóllëre ngir jariñu gi may jariñu ci yow loola nag di yëg-yëg bu diis ci yow bu rëy ci yow ba nga agsi ci man fasanteeg man kóllëre ngir ak yëg goo xam ni sunu borom dogal na ko sama diggante ak yow ma jàng ci yow lu bari ma jàng ci yow muñ ceet li may wax penku laa jublu yàlla laa koy seereel muñ ci li ngay liggéey ndax yaa ngi ciy jànkonteeg coono yu rëy te muñ ko ngir yàlla li ma mën a moo di fa muy liggéeyee xamut ko am xamut ko man xamut ko taaru xamut ko ñaaw xamut borom barke moom sëñ Tuubaa lay liggéeyal moom lay liggéeyal fa muy liggéeyee kenn ku ñëw mu ànd ak yow su fekkee da ngaa ñëw ak saw tàngoor mu sara la ba nga sedd mu ànd yow ci la ngay liggéey li muy li muy liggéey defal la ci la nga bëgg kon loolu mën naa ko seede ci ci yow dëkkandoo yi mu taxaw ci taxawaay bu rafet bokk yi noonu la ci mel waaye taalibe yi sëñ Tuubaa yi noonu la ci mel xool kenn noo mel ni sëñ Tuubaa mel rek lay xool kenn ku ne jimmi sëñ Tuubaa rek lay xool ci yow kon loolu moom mën naa koo seede ngir jimmi suñu borom njabootam gi muy wax nag macha allahu. dafa doon ku bëgg lu baax fu lu baax nekk man ko faa fekk nangoo wàcce boxam ba jëriñoo ko kon man am naa itte joo xam ni yokkaat naa itte bi ma joxee njabootam gii ndax ni mu leen di saytoo ak ni mu leen di toppe ak ni leen di def sëñ daara bi ci sama kanam moo yore xale yi muy sëñ euh, sëriñ mbay mii sëriñ mbay dey yàlla lay seere li ma wax su fekkoon ne li nga seqal ñëpp ni Ahmadou mii lañ mel man nga bañ a tey génn sa kër te loolu xam nga ko xam naa ko yàlla xam na ko ndax lu ñu ne loolu lañu war a def xanaa ndolleen la ci def waaye lañu war a def moom da koy def ca waxtu woo xam ni bala ko kenn def mu def ko kon ku ñu bu ñu la jëloon si biir leeral la ko ni nga ànd ak daara yi ni nga ànd ak ñi nga joxe seen ndongo yi kenn ku nekk macha allah na am ku bëgg a mel ni yow ndeyastu mii nag bi nga xamee yàlla dogal na mu bëgg lii ni daa bëgg dem ci rajo bi ma boole kook yow nga ne ko kër gu gee sa kër boole kook ñu ko taxawu lool lool sëñ Mor Talla bi ma ko tuddee mu doy soxna Soda ma ko tuddee mu doy kon nag dong ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom gën laa dimbale te gën laa jàppale suñu amee wenn way wu lay wax moo di ani jasaaka la sëñ Tuubaa waxoon rabbun hadaaka yal na ma la sa borom fayal moom mi la gindi ba melal ni lii nga mel an ni jësaak rabun hadaka faw xamu naaka lu kowe njort yow mal jësaay bis ba ñuy fay yal na suñu borom fay lu kowe sa njort yal na suñu borom dimbale nga amee tànk amee laaf mën a yóbbaale ñi nga bëgg yóbbaale ñëpp ngir wóor na ma ni wóor Sëñ Tuubaa mi nga xam ni nun ñëpp xam nañ ni suñu yaakaar génnu ko mooy bu la dimbalee nga dimbale waate loolu xam naa ko bu baax yàlla na suñu boroom dimbale dimbale ñi nga àndal ba loo bëgg nga man koo am wasalaamaaleykum wa rahmatulah. te dem na ba yëkkati sama doom teg ko ci ay loxo Baye Jagal def na ci moom loo xam ne ba léegi da koy wax noonu naa ko xaw ma yàgg nga fa mu yàggoo fa waaye nga fa loo xam ne mënoo ko woon amee feneen kon bu yëkkatee ak cant di ko joyal ci moom euh, gaynde saa bu déggee bal rek il faut mu jóg taxaw ndax Baye yi ba mu dikkee fii ba léegi côté bi moom féete. ci wàllu gu nekk la ma féete ci sama biir ak njaboot ci wàllu xam-xam ci wàllu néegam yàlla bii nga xam ne dañu koy taxawee ak sunu mbokki dëkkandoo yi foo ko séen muy waaxu ci lu baax lay dox te doo ko séen ci dara ci lu bon te loolu daa mel ni julli jikko yonante la te loolu la sëñ Tuubaa digle te loolee ca la ne fonk alxuraan lool man ko lool yàlla dimbali ko ci mu di ci def li mu man lépp jël ak njabootam def ci yaakaar naa loolu la seere soxna lii ma na ci seere man nag wet gi ma féete wax dëgg yàlla mënumaa lim lépp damay dimbali ci sama biir kër di ma jubantit sama njaboot di wet ak ñoom di leen yàdd di ma taxawu di ma dolli xam-xam fu ma taxaw fu ne mi sama kanam mi sama ginnaaw sama wéttal lii nag moom suñu mbokki taalibe yi nekk yépp yëpp waxaale naa leen ko man de ba muy ñëw ci fondement bii yàlla dogal mu fekk ma fi mu ne ma fii sama daara ma ne ko yow de damay ñaan ci doole Seexul Xadim nga wétali ma fii amoon naa fi wétalu mat wétal waaye ba ma ko noppee gis bu ma ñëwee foofee la foofee la taxaw ma sante ko yàlla bu baax a baax ndax Baye Diouf Assane Ousmane euh, Baye Assane moo nekkan ci daara sëñ Seex ji jàkk ji noo ko doon taxaw mu rëdd ko lépp ñu teg ko ci loxoom bi muy dem bàyyi mag lépp maag sama bokki dëkkandoo yii waaye Baye Baye Sidi mii dox na ci jéego yoo xam ne bi mu ñibbisee ak léegi dox na ci jéego yoo xam ne kawe na suñ jot noo ngi koy ñaanal nag bis bii nga xam ne mi ngi koy taxawee njabootam gii sama borom tëbb ko ci kàddan bokk na fi yàggal lool lool lool ndax njariñ la ci koñ bépp nag waaye njariñ la ci dëkk bi ndax koo xam ne li sëñ Tuubaa liggéey ci nga ne ci ngay dox ci ngay wax di ci yeete di ci yeewu ci te di ci yeete di ci dimbalee te boole ko woyef loolu yombut am te jikko yooyu mi ngi ci moom kon bu ko nattee ci bàyyi jagal mi ñu mën a ànd xam ne dañoo yem jikko te bokk ak bëgg maa ngi ñaan nag ngeen dimbali nu ñaanal nu te ñaanal ko te nu ñaanal mbooloo mi yëpp sunu borom taxawaay boobu yàgg ci kanam njaboot gi sunu borom dolli nu ak wér ndax koñ bi nun ñëpp benn lañu ñoo bokk lépp ay taalibe rekk fi nekk waaye ñoo bokk bëgg lu baax waaye moom bi mu ñëwee jigu yi mu ci jox waaye lotta nan ci ndax suñu xam-xam bariwut suñu doole bariwut te nun boroomu tàngoor la ñu nag it noo ngi balu nag ak waa koñ bi yëpp nag ak njaboot gi ak bokki taalib bi yëpp te xam ne ñun suñu doye di rek la waaye lu baax rek la ñu bëgg ci ndigal sëñ bi la ñu bëgg di dox lépp loo xam ne waaye naqari la ci suñu jikko noo la koy tuubal ngir jëmi sëñ Tuubaa waaye Baye Sidi lay dénkaat suñu bopp ci sab taxawaay ak njaboot gi nekk sa ginnaaw yëpp muy gone yi Lamine Tall ñoom ñëpp ak ñoom ñi ci koñ yëpp ak jigéen ñi góor yi maa ngi leen delluwaat di leen tuubal bu baax di leen balu àq di ñaan suñu borom tabaraka wa taala boole na fi sàmm te saxal nu ci ndigal Seigne Touba bëgg ak Seigne Touba rek ay sunu njëriñ tay waye moy doon sunu njëriñ ëlëk isil muridu la yuridu abada khairu dar rahman ay so xasada murid mom moy ka nga xam Seigne ba bëgg rek ci la ne te bàyyi si lool royu kay la ci te lima wax luma mëna séré la ñu bari mën nañ koo seere kon nak bay jégal no nga ñaan sa and bi ak bay sidi yegg fo xam dina kawé sa njort lettre ba nu fa indi won da yalla dogal taxaway ba nga nu ci taxawon ci biir jakk ji lama la ci waxe man amna ci yàqin ju ma woor ne sunu borom ak dolli ko am na te loolu dañuy ñaan mu gën a jëm kanam lii nga sémbaat taxawaalaat ko mu jëm kanam yàlla doon ay rajoy rajo liggéey bi yàlla yaatu buñ mbooloo mu bari xacc barki Seexul Xaadim jërë ngeen jëf day gudd ngir am ay xibaar yu leer te ak lépp lu xew ci wàllum actualité nationale et internationale C'est ci sa chaîne bi ASG produit